jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi al misbaax ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara démb bi ñu yëkkati jataay bi lan toogoon maak ndaw ñi bay bëgg a tàmbali benn réunion benn réunion boo xam ne ñi ko fekke ci ndaw ñi mooy ñi am quinze ans te amaguñ cinquante cinq góor ñaa ngi taxaw toog ci sama côté droite jigéen ñi taxaw toog sama côté gauche réunion bi nag xumb na ndax xajuñ ñu grand théâtre ndax bu ñu fa demoon dañ koy def petit théâtre ndax réew mi kaar kaar daa bëri ay gone ndeysaan am na sax nag ay mag ñu ñu rax <laughs> am na ci suñu biir ay mag ñu ñu rax ndeysaan maa ngi seen ñoom mbay sii di mbay nii tabarkalla <laughs> waaw ak ak professeur Sada maa ngi leen seen ci réunion bi <laughs> mbokk yi xale yaa ngi toog ma bëgg leen a wax almahamu allati tantaziruhum taas yi leen di xaar laa leen bëgg a wax ñoom ndaw ñi ñu ngi nii ci saal bi toog ak man ma ne leen dafa am ñeenti tâche yoo xam ne ci pénc mi tâche yooyu xaarul paa yi yooyu xaarul meer yi ñi am cinquante cinq ans ñépp peut-être def nañ seen wàll yéen ñi toog di ndaw ñi yéen la réunion bi conserne yéen a war a def seen wàll acca jël leen seen bindukaay ngeen note waaw xam naa ndey faatu jàllo albir waaye moo soxna sala jëng ñi ngi bokk ñi note waaw ak Yacine Diop mële ca ndar nee na moom it mi ngi note tàmbali naa note kon nag note leen li jiitu ci taas yooyu di xaar ndaw ñi mooy defaraat li yàqu ci pénc mi defaraat li yàqu ci pénc mi seetalaat li taq ci pénc mi jubbantiwaat lu jubadi ci pénc mi loolu xaarul paa yi xaarul meer yi mën naa am def nañ ca la leen war waaw mën naa am bu dee nogay nag defu ci dara te màggat na bokkul ci réunion bi waaw moom am na est-ce que amul soixante sax <laughs> waaye taas bu njëkk baa ngoog penc mi am na ci yooyu du noonu penc mi am na ci yooyu du noonu am na ci doxin woo xam ne du woowu am na ci toogin woo xam ne du woowu am nay tasawuraat yoo xam ne du noonu ay gisin ay gisin nañ ci penc mi yoo xam ne du yooyu kon loolu mën naa am ay yàqu-yàqu la am na gisinu yoo xam ne dañ naan penc mi war a bëri ay gone te saal baa ngi nii fees ci réunion bi gone yi ne sama kanam waaw ay am pénc day bari ay gone nga xam ne loo dugg rek gone àggale ko gis nga gone yi di football Ablaye Jaw gone yi di football bu fekkoon nëg ni réew maa ngi toll ci ñaar fukki million ak juróom sunu réew mi bu fekkoon fi la toll nii li nu soxla dëppi dëppi sunu mbokk ma Khalilou Fadiga dëpp xalilu Fadiga lan soxla woon muy ailier gauche de métier bu fekkoon ñu ngi ci vingt-cinq millions danañ ci mën a am quatre peut-être wala cinq sax waaye comme seize millions yi matagut am Khalilou Fadiga dafa nuy jafe lool tabarkalla <laughs> waaw am Khalilou Fadiga waaw. Euh, héliogauche de métier lañ koy waxe ñun ñun sportif yi héliogauche de métier waaw noonu lañ koy waxee kon defe ne réew mi warta bëri doom maa kay na ko bari la defe ne it ku ñëw ci réew mi boo fi soxlaa gone yóbbu ko loolu tam déedéet bu fi kenn jële gone di koy bitim réew di ko wutal yaay yu bees ak baay ju bees léeg lañu ñu wutal koy yaay ju góor bu kenn def tâche boobu mbokk yi xale yi dama leen di bàyyi bu ngeen demee ci kër ga ngeen yaatal ko bu ngeen jóge ci réunion bi waaw seet dégg ngeen waaw gone yi sëgg ci seen ordinateur noté ko buñ àggee jéem ko yaatal yaatal ko bu baax a baax nag ba li nga xam ne ci pénc mi daf dul noonu gone yi pare pour defar ko danaa ñëw nag ci gone yi pare pour defar ko ndax ñoom it dañu jóg rek nañ defar déedéet dafay am benn formation bu ñu leen di defal danaa leen ko defal incha allah bu bu ci ci ci ci ci waxtaan yi maag yéen dégg ngeen waaw dégg ngeen gone yi nee leen waaw bu ñaareel bi ci taas yi leen di xaar mooy penc mi daa am ay munkaraat te man raa minkum munkaran dégg ngeen ko fal yu xayruhu bi yadihi waaw man raa minkum munkaran kon deuxième tâche bi mooy taxyirul munkaraat munkaraat yi ci pénc mi te mooy njomb téef yi njomb téef yi tàmbalee ci col gi tàmbalee ci waxin wi tàmbalee ci ni ñuy jëfandikoo internet tàmbali ko ci whatsapp yi waaw tàmbali ko ci relation yi ak ak ak ak loolu ci pénc mi munkaraat yooyu ndaw ñi taas la bu leen pénc mi di xaar pour ngeen changé ko waaw pénc maa ngi leen ci xaar pour ngeen changé ko hmm? waaw loolu benn taas la bu leen di xaar bu ñetteel bi li fi door li fi jote jag li fi jote jag ngeen téye ko ba du jagadi salaaxiyaat yi li fi jote jag ngeen téye ko batu ba du jagati ndax inna al lillaahi yarithuha ibaadiya saalixuun loolu mooy salaaxi salaaxiya ibaadiya saalixuun yàlla nee na pénc mi maa ko moom duma ko jox ku jagut <laughs> pénc mi maa ko moom duma ko jox ku jagut du ma ko jox ku jagut ndax ku jagut du mën a jagal moo tax ñi ci nekk ay politiciens ci yéen yéen ndaw ñi nañu fexe salaaxiya googu am ci yéen ndax salaaxiya gi mooy ndaw luy tàmbalee politik waaw dafay dafay yëg ne bu salaax ya amee bu yàlla séddu séddu ko buñ ko séddee mu sédd ko buñ ko séddul mu sédd ko salaaxiya googu mooy dangay fexe ba moom moom sam xel moom say xalaat moom say cër te am yéenay defar waaw kabura maqtan indallaahi an taqulu ma la tafalun te booy campagne baa ngi ne ci biir nit ñi wax ay sikki nit déedéet bu mu la ci fekk dangay wax yow yi ngay indi ngeen baal ma ndax wax sikki nit ñi su baree da sikk li may wax nii Oustaz Demba Diop mbali nekkoon kolobaan xarakatu alfalaax yàlla na ko yàlla yokk wér bokkoon ci duaat yu mag yi ci dëkk bi bala ci la bokk sax ba léegi dafa am méthode méthodologie bu muy daan jëfandikoo bu tuddee sifaatu sit luy loolu mooy day wax ne damay day jéem a defar pinc mi waaye day indi juróom benni melo di ko wax waa pénc bi bañ xemmam ko defaru su ko defee nee na au lieu mu tudd sikkus nit nit ko tudd sikkam ñuy tuddantee sikk nee na loolu dafa bokk ci taas yi xaar ndaw ñi mooy defaru ndax nga mën a defare rekk waay bala ngeen a laax lekk laax leen jaay loolu mooy sa troisième bi xaar ndaw ñi quatrième tâche bi mooy sàmm sàmm jàmmi pinc mi ad daruriyat al xams sàmm jàmmi pénc mi ndeysaan góor gi ca yoof waaw góor gi ci yoof ndeysaan yal na yàlla yokk ko yërmande waaw bu ma saana wax ba lay jeexal ne réew mi am na jàmm yal yàlla yokk jàmm ji daal ni allahumma salli ala muhammadin daal di julli ci runt bi góor gi ci yoof góor gi ci yoof jàmm juróom ku ko am am nga jàmm juróom yooyu nag ko ndaw ñi sàmmal pinc mi ndax kenn gënu leen na yey ci sàmm ko yéen ñi am 15 ans te amagu leen 55 moo xam yéen ci politique bi moo xam nekku leen ci waa si société civile ci lañ bokk waaw waa société civile ci lañu bokk <laughs> waa la ko de waaw ci la ñu bokk de waaw waaw yi ci lañu ñu bokk de ñoom góoru xumaag ñu ñëpp ci la bokk sàmmal pénc mi seen juróom juróom yooyu ba ci jiitu mooy sàmmal nit ki lim gëm sàmmal nit ki lim gëm waaw ndax nit daa war a am sañ-sañu gëm dara waaye fi ne pénc mi loo gëm ñu ne baax na boo ne lislaam ñu ne baaxul pénc moo xam ne démocratie lañ lañ fi doxal woykat ba mu ne dañu nuy nax dañu nuy nax démocratie bi léerul lu ñu wax tey bu si biir saa mu di ay kaf loolu démocratie war ta doxee noonu maanaam tey démocratie lii moom la bu ëllëgee du ko doon lu ñu wax tey bu si biir saa mu di ay kaf waaw dañu noon réew mi boroom mi carte la ñuy fal ndaxte moo xew ci réew yu mag ya fi dul kaf ba ñu sàjjee ba ñépp ñëw ba ñu wàlli ñu ne waa diine bokku leen bu leen dof waaw waykat bu mu ne maawo sax am na fi kuréel ak i gaayam ña fël xoote naa dañoo ànd tey jëf waaw ñu ne lislaam moom doo fi am donk dafa bokk ci li ñuy sàmmal penc mi te muy xaar ndaw ñi ma leen koy fàttali ci réunion bi mooy sàmmal nit ñi seen juróom yii ba ci jiitu mooy sàmmal leen seen gëm-gëm li ñuy wane ci audio yi ci réewum Chine ci wàllu nañuy méjitile jullit yi métti na sunu borom ma intervenir lam leen di teg metti na waaw déglul alxuraan ca sóoratul buruj inna allazina fatanul muminina wal muminaati thumma lam yatuubu fa lahum adabu jahannam wa lahum adabul xariq yàlla nee na ñii métital ñi ma gëm yàlla mu ne ñii métital ñi ma gëm wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi azizil hamid tubaab bi ñëwal fii song suñ mag ñi lu mu joteeg ñoom lan la joteeg ñoom waaw lan la tubaab bi joteeg ñoom waaw waaye inna lazina fatanal mu'minina wal mu'minaati yàlla mu ne ñi nga xam ne ñooy fitnaal ñi ma gëm di aw góor di fitnaal ñi ma gëm di aw jigéen fu ma lam yatuuboo te duñ ca te delluwuñ ca ginnaaw te delluwuñ ci ginnaaw fa lum azaabu jahannam luñ gis mën luñ gis mën a réew yi siin dafa bokkoon ci réew yi gën a mën wàllu wér-gu-yaram dégg naa bu ñu la opéré sax dafa am ay puso yu ñu lay jam rek rek la say affaire ñooña la yàlla teg feebar boo xam ne bët bu set ñu wax la quarante cas yu bees wax la nangam moor yu bees wax la nangam nangam lu xew lu xew li xew nañ ko gëstu bu baax yàlla dafa moom suuf si fam suuf yi mën naa ki biyaa fu leen neex dem leen maa moom suuf si moo ko moom waaw moo ko moom léegi nag nga ne nit ki doo fi gëme jaral la nga téye ko ci barab ba téye ca fukki million benn jaral la bu añ jotee nga indi leen lu dëgganu lekk ci ñoom bu naan jotee nga indi lu daganut naan ci ñoom te ay mu'minuuna lañu ku ne seen biir awliyaaw kummal yaa ngi ci seen biir aqtaab yaa ngi ci seen biir waaw ab abdaal yaa ngi ci seen biir nga boole ñëpp rek def ci loolu yàlla nee na fu ma lam yatuubu fa lahum azaabu jahannam wa lahum azaabul kon nit dañ koy bàyyi ci gëm-gëmam mu gëm ko jeex na jeex na xanaa kay nit sañ na ne man yàlla laa gëm xanaa démocratie bi sañ na ne yàlla laa gëm penc mi it gone gu jigéen ngay gis mu ne yàlla la gëm suñ penc yi muur aw yaramam ñu ne ko moom nga gëm doo fi liggéey demal muutal liggéey loolu lañ lay wax bëri na koy def entretien fi nekk nii la tax ñu xañ la la nga am sa muuraay bi la waaw léegi wama na wama naqamu minhum illa an yuminu billahi al-azizil hamid xañuñu ko liggéey bi lu dut lii yàlla na ko def ko mu def ko waaye nag na dem rek kere ba yonent bi jógee màkka di dem al madina waaw kere ba yonent bi di jógee màkka di dem dafa génn ba ca biti nga xam ne jeexal na ma màkk léegi ila madina te dootu fi dellu si di fi dëkkaat mu gestu màkka xool ko rongoñ ya tuuru ndax ba mu ganee àdduna ba mi ngi ci cinquante trois ans mosu koo génn tey lay am affectation boo xam ne bii Madina la jëm mu xool màkka ndeysaan rongoñ ya tuuru ci dënnam mu ne ko mu ne ko màkka ndeysaan yonent bi ne màkka màkka maa la bëgg <laughs> seet man sama yaram sax ngi daw màkk maa la bëgg lii rek a tax ma man laa génn lii rekk mooy samay mbokk takk samay bagage jox ma ne ma génnal waaye suñ ma la génn wutoon du ma la génn xayyan wa mayita màkk maa la bëgg ay màkk maa la bëgg yonent bi ne Jibril kaay nga dabal ma ko ndeysaan kaay nga dabal ma ko yëtal ma ko laaye ji jibril na malaaka yi kaay leen gunge ma su seen mille malaaka ànd ak moom ñu ne cëpp ci buntu màkk fam taxaw ne ko sa boroom nee na inna allazi farada aleyka alquran la raadduka ila miaad mu ne ko doxal lii lépp maa la ko teg di san yàlla yàlla na ko lii lépp maa la ko teg ndax maa la sant lu pénc mi narut te naroo ma sant la dara nga di ko gàntu sa law dugg nag duggun ku nag li ngay woote kenn du la génn dëkk bi kon li li tax ñu lay teg lii man mii maa la ko teg di san ko waaye doxal maa ngi lay jox rendez-vous da nga dellusiwaat fii waxuma la kii waaye caabi dëkk bi yëpp yaa koy moom doxal yonent bi fompi raw nga ñam daal di wuti ma madina gestuwaatul ba dem agsi madina loolu mooy lan mooy xale jigéen yi muuru yàlla nee na man mii maa leen ko teg ndax maa leen wax su suuratu Nuur ak Ahzaab muuru leen seen baay mere leen ak seen yaay rawatina seen tànt ji waaw léeg sax far bi nga xam ne moo la doon bëgg a takk bàyyi ndax muuraay bi yàlla mu ne waaye rendiwoo ngi ñëw ndeysaan xanaa xool war naa sedd nga ñëw ci bërëb liggéeykaay bi a def entretien raw ña fa nekk ñëpp ak suy diplôme ñu ne la waaw malheureusement luy malheureusement mooy sa muuraay bi boo ko dindi woon mën a liggéey lañ waxoon gone ga ca France summikul te jàng mu ne suma suma su su ko du ma mën a xam lu may jàng papa ja ñëw ci ecole ba ne ko dindil sa muuraay bi mu ne ko papa bu yomal xiyaamee yàlla du ma laaj lu tax jàngiwu moon ci école bii duma ko laaj xam nga lu may laaj lu tax muuru woo papa ji ne këpp ndax gone ga waar na ko na na Mariama waare woon Zakariya yaa Mariamu ana laki haza foo jële lii mariama def ko ci ton bu ton bu ton kalmu ne ko huwa min indillah inna allah yarzuqu man yashaw bi xayri xisaab rekk papa ja waaru waaw doom yaa ngi waar seen bàyyi wax la ko tey seettt mbokk yi réunion bi damaa tollu ci tomb bu jara yaatal waaw te bëgguma mu nekk réunion arabisa waaye tomb bi moom dama ko bëgg yaatalal ndaw ñi mooy sama quatrième tomb mooy li ndaw ñi war a sàmmal pénc bi mooy ku ñu sàmmal la sa diine loolay benn ñu ne waaw mën na ndaw ñi ñu fexe ba sàmmal ku ne bakkanam ñu sàmmal ku ne bakkanam lum jar nag jar na ko bakkan yaa ngi daanu rek ndeysaan rendi li gën a métti ci mbir nag mooy rendi nit ku yor ngànnaayam ñëw sa néeg sa kër sone nga ubbi allahu akbar ñëw kër sone nga ubbi ñu soxla ñu soxla bal allahu akbar dugg ci oto ne oto bi yëkkati leen seeni loxo ñu yëkkati nga jël saag yi jóge ca làmb ja làmb jeex nga jaar ci mbedd mi koo romb yur nu biir otoom jël téléphone ba ku la romb yor téléphone nga jël waaw di rey bakkan xale yi sàmmal leen pénc mi seeni bakkan bu jaree ngeen waxtaan ak waa assemblée ngeen waxtaan ak ñoom loola fi nekkoon ñu ko tuddee peine de mort nu indiwaat ko ba xam seet ndax kuy taalub si bu mu tax tàkk da koy taale côté bu nekk waaye buñ jàppee ne ak dellu ginnaaw la ah, dellu ginnaaw ba raw alxuraan dellu ginnaaw ba génn suñu loxoy suñu borom dellu ginnaaw ba ne suñu borom yow ñun danoo danoo weesu yi ngay àtte walla àtte daa xewi wala réew yee ko baax na am na yu xewee gudd dee de xewee gudd mhm. sunu mbokk ma Ahmed Dansokho waaw le grand démocrate daana ko wax dee dee xewee gut dëjit xewee gut wàcc ci dëj bi alxuraan it xewee gut nàkk yi bàyyeegun ko ilimaan tëjal ñaan gi bàyyeegun ko waaw <laughs> yooyu yëpp bàyyeegun ko de mukk summi néew bi ba mu ne dung it bàyyeegun ko waaw te ku fi dàq baj baji dàq fee nu mu tuddati bés a ngi ñëw dañ la summi ma wax la ko tey te ñooñu nga doon xeeb ak di leen def nangam ak li ngeen wax dara tegu leen ko fenn ñooñu la ñuy woo kenn mu summi la yàlla waaw moo tax xale ba ca ndeysaan Algérie ca jamonoy Algérie ca fiis Abbas Madane Madane ak ñu ne xale ba waaw penc bi jaaxlu la mu ne mukk ñu ne ko lu xew mu ne dafa am benn benn solution bu fi yàlla indi mooy la mort moom lay solutionner problème yi ma ne ko aw oh, yow de doo gone mbokk yi maa ngi ci tâche yi xaar ndaw ñi nekk ak ñoom réunion noté nañu tomb bu njëkk bi mooy defar li yàqu ci pinc bi noté nañu tomb ñaar bi mooy changer euh, yàqu-yàqu yi tomb ñetteel bi mooy defaru ba mën a defare ma tolloon ci tomb ñeenteel bi te mooy sàmmal ñu juróom lim naa ci benn muy diine lim naa ci benn muy bakkan bu nu dundee ba ëllëg incha allah nu continuer réunion bi maa xale yeeg yéen jërë ngeen jëf ci ànd bi ngi ci defeem seen rajo ñoo ngi jéggul soxna yi di jéggulu sëriñ yi di ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër suñu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi nii tax yor seen i këyit bëgg la ne firiñ fàncil xibaar tuwaa firiñ fàncil ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor bii di C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara ñanaan daloon ci waxtaan ma di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu